xam ne ministre bi daan na koy wax bu ñu ko xayma mën nañoo jàpp ne 2012 ak 2024 budget bi dañu ko multiplier par trois ndax ci atum 2012 2344 milliards la woon jamono ji ministre bi nee na dina ëpp 7000 milliards te ministre bi nee na loole li nga xam ne moom lay wund ak la muy jur mooy croissance économique bu Sénégal boo xam ne ñaari chiffre lay doon mën nañoo jàpp ne 12 virgule 4 pour cent te nag loolee mën naa ñoŋol bu baax a baax dund ak nekkinu askan wi rawatina ci lu jëm ci wàllum accès à l'eau maanaam ndox moo xam ne ndox mu sell la ñëpp daal di si jot ma na ko waaye budget bi tamit mën naa tax ñëpp daal di am lu jëm ci wàllum énergie maanaam wàllum courant assainissement bi nga xam ne jamono ji bëri na ñoo xam ne am na ñuy jafe-jafe ci inondation yi loole tamit bokk na ci li nga xam ne budget bi dina ko saafara ak lu soxal wàllum fajuge wér gi yaram gi ci réew mi wàllum njàng meeg njàngale mi tàggat xale yi ñu am liggéey ak xeex lépp loo xam ne jëm na ci wàllum inondation wàllum mbay mi ak lu jëm ci wàllum sécurité intérieure journal bi de Le Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu budget 2024 li ci yokk maanaam toll na ci 585 milliards yéen kay gi di Direct xëy di ñu xibaar naan ñu démb ministre bi ñu dénk wàllu finance ci réew mi di Mouhamadou Moustapha Ba daan na yëkkati ab discours boo xam ne dalal na xel moom ministre Moustapha Ba ci journal bi di Direct News daan nay wax ci lu jëm ci wàllu masse salariale bi ak ni nga xam ne moom la yokkee ndax nee na ci atum 2011 423 milliards la woon ci lu toll ci 91 401 ci ay agent nee na nag jamono ji maanaam masse salariale bi toll na ci 1114 milliards ñi nga xam ne ñooy agent yi bi ñu ko xayma 165 385 ci ay agent la lu jëm ci wàllum bor bi bi ministre bi daan nay wax ne maîtriser nañu ko yéen kay gi di bés nee na ministre bi ñu dénk wàllu finance démb ma ngi woon assemblée nationale waaye nag mbir mi yombutoon ci mooma ndax député yi nga xam ne ñoo bokk ci coalition Yewwi Askan Wi bloqué nañu démb assemblée nationale ci diir boo xam ne diir bu yàgg ndax ñoom dañu doon sàkku seen moroomi député yi nga xam ne teg nañu leen loxo ñu daal leen di bàyyi laas yéen kay nee na ñeenti député jiite kër góor gi kero bi nga xam ne jóg nañu ne dañuy libere usman Sonko la ñu leen jàppoona bàyyi nañu leen démb yéen kaay gi di Walf Fadjri xëy duñu xibaar naan ñu élection présidentielle 2024 ba léegi ay xiini miini moo ci am ndax amul benn candidat boo xam ne ay mbiram leer na su dee nag Macky Sall mi nga xam ne ñenn ñi njort nañu ne wër ta sampandëndam bis bu taxawee ci réew mi ne candidat la ay manifestation yu bëri mën naa am ci réew mi bu dee Ousmane Sonko jamono ji am na ay jafe ci lu jëm ci wàllum yoon Karim Wade ak Khalifa Sall seeni mbir waxtaane nañu ko ca Assemblée nationale waaye nag loolee rek doyul ndax Macky Sall mooy apprécier rawatina ñu war koo jël yóbbu ko assemblée nationale bu dee nag yeneen candidat yi nga xam ne ñoom amuñu jafe-jafe ci lu jëm ci wàllum yoon ñooñu parrainage bi moo leen nar a ay jafe-jafe ku ci mel ni Déthié Fall mën naa am ay jafe-jafe ci lu jëm ci wàllum parrainage bi Abdourahmane Diouf mën na see am ay jafe-jafe Malick Gakou mën na see am ay jafe-jafe Abdoul Mbaye mën na see am ay jafe-jafe Idrissa Seck mën na see am ay jafe-jafe Mamadou Lamine Diallo mën na see am ay jafe ñeneen ak ñeneen tamit mën na ñu see am ay jafe kaay gi de la xëy di ñu xibaar naan ñu armée nationale bu Sénégal jamono ji maanaam daat nay def ab renfort ma ngi def ay recrutement journal bi di source a nee na armée bi ma ngi manœuvrer di bés bi na ginnaaw police ak gendarmerie armée ma ngi woon ñi nga xam ne ñooy ay soldat rama maanaam yi nga xam ne dañoo libéré woon armée jamono ji woolu nañu leen yéen kaay gi di Rewmi Quotidien nee na Pape Abdoulaye Touré sonn na ba mara détaillé ci lu jëm ci wàllu wér gi yaramam ay jege ñaaleem ñoo ko xamle ndax nee nañu dafa daanu ca toilette yu gaañu gars yi gaaw nañu jël ko rawale nañu ko hôpital te Pape Abdoulaye Touré dafa damm woon yéen kay gi de Le Quotidien yor yor nee na ñi nga xam ne ay pèlerin lañ maanaam ujaaj yi nga xam ne ñoo nekk ci diwaanu màkk jamono ji ñoo ngi ci jafe-jafe jafe-jafe ñu dund jamono joojee Macky Sall ak soxnaama ma nga ca màkk ja maanaam di ko def ñoom ci anam boo xam ne tranquillement good fine ñetti nit ñoo xam ne jot nañu si ñàkk seen bakkan am na lu toll ci ñaari nit ñoo xam ne mën nañoo wax ne dañu leen abandonné ca diwaanu Muna amuñu ku leen guidé amuñu ku leen dimbale reer ak bi ay jafe-jafe lañ ci am yéenekaay gi di Direct News nee na njiitu réew mi di président Macky Sall daat nay jaalee ñett ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkaane ca Màkka yéenekaay gi di L'Observateur nee na en tout cas li am ba des daal pèlerin yi ujaaj nga xam ne jamono ji ñoo nekk Màkka am nañu ay jafe-jafe yu métte métti rawatina ay jafe-jafe ci lu jëm ci wàllum lekk ndax bu añ jotee tuuti lañ leen di defal ceeb mën na la barket lañ leen di dox ay barket yoo xam ne tuuti ceeb lañ si def nag waaye nag bu dee reer bi maanaam reer bi dafay guddee lool mën naa dem ba 23 heures nag reer ba la yàlla xam doy na kaay gi de la Tribune nee na opposition bi ak Macky Sall jàppante confrontation inévitable maanaam jàppante mënut a ñàkk diggante Macky Sall ak opposition bi te li nga xam ne nag jamono ji moo nar a gën a andi ay jafe-jafe ci mbir mi mooy lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat bu Macky Sall bi yéen kaay gi di Rewmi Quotidien génn nañu diwaanu Kaolack yóbbu ñu ca diwaanu Thiès di ñu fa wax mbir moo xam ne mbir mu doy waar la dafa am benn waay bu tudd Victor Mignane boo xam ne muudu muudu la moo jël 34 milliards jox ko benn mbokkam boo xam ne ab professeur la ci université bu Thiès ngir nag mu jëndal ko ci terrain